أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين لما تريد الرسالة تمني يقدر جانج يقدر فونك مونكني bismillah fii nag la tàmbalee fii la tàmbalee day jëkk a bind bismillahi rahmaani rahim bismillahi ci tudd turu yàlla lay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewal yu dijj yi arrahimi yàlla ki aji xéewle xéewal yu sew yi bismillahi rahmaani rahim nag prima ca gën a gàtt mooy rek nga ne maa ngi tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne mooy xéewal mbindeefam yi bu dee ci àdduna muy xéewal gu matale ñépp ba muy xéewalaali sax ña koy weddee kay mooy bu dee ci àllaaxira nag muy xéewal ñu gëmoon rek te bañ caa boole ñu weddi woon ba tey nag man nga ne mooy yàlla mi nga xam ne mooy xéewal xéewal yi dijj ak yi sew ndax xéewal moom mën naa dijj mën naa sew tàmbalee tur yàlla dañu ko fonk lool ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxal ne ibda'u umurakum dawatil baali bi bismillahi seen mbir yi nga xam ne ñoo am solo dee luñ ko tàmbalee bismillahi wax na feneen ne loo xam ne tàmbalee wuñ ko turu yàlla du am barke ba barke ba day manqué wasalla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin muhammad wa ala alihi ak ci ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wasallama tem dool leen wóolu da cee teg julli ci yonante bi ñaanal ko yàlla dolli ko teraanga ak jàmm dolli ko mboolem mbokkam ya ko gëmoon te moo di ñoñam ak mboolem sahabaam ya te mooy mboolem ya ko gisoon rek te gëm ko te faatu ca gëm ga qaala wax na abo muhammadin abo muhammad loolu mooy dàkkintalam moom mi taalif abdullahi bunu abi zayd nag mooy turam alxayrawaaniyu kay ko jug xayrawaan radiya yàlla na doolee gërëm allahu yàlla anhu walis ko wa ardaahu te mu gërëm loo ko sëriñ bi taalif dañ koy dàkkintale abo muhammad waaye turam mooy Abdullah ibnu Abi Zayd mu dëkkoon nag ca xayrawaan ca toolis yal na ko yàlla doole xéewal ak gërëm ba xolam gën a sedd sedd alhamdu xeeti cant yépp lillahi aj yey la ñeel yàlla maanaam yàllaa ko yeyoo allazi yàlla mi nga xam ne ibtada a sos na al insaana nit bi ni'matihi ci xéewalam wa sawwarahu te mu melal ko fil arxaami ci këmbukaay ya bi hikmatihi ci xereñeem xereñe mooy xereñe mooy liñ defe ci anam gu yéeme yéeme dafa tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne moo jekki-jekki amal doomi aadama ci coobareem rek waaye du bëgg doomi aadama teggil ko jenn lor mbaa fàggul ko lenn njariñ déedéet ci coobareem rek la amale doomi aadama ak sax leneen lu mu amal te it ba doomu aadama nekkee ci biiru yaayam moom lay wax këmbukaay ya fala ko suñu borom njëkk melale melo woo xam ne bu yéemee yéeme la dañ koo miin rek ndax boo seetloo doxinu man yu na muy sotti ko lumbu deret ak gannaaw ba na muy sotti koo aw dogu yàpp ak gannaaw ba na muy sotti koo ab yax yax boobee ñu wëlbatiku sàng ko aw yàpp ak gannaaw ba na yàllay sàkki cër ya ba moom cay sol ruuga loolu lépp lu yéeme yéeme la wa abrazahu te mu génnee ko ci lëndamaayu biir ak xataayam ga ila rifqihi jëme ko ci yaatuwaayu adduna ak féexaayam ga nee na suñu boroom ba mu defaree nit ci biir yaayam ba mu jekk xam nga ne biir ba moom daa boole lëndam ak xat suñu boroom génnee ko ca andi ko ci adduna mi yaatu te féex boole ci moo tax ñaari baat ñooñu seen biri xaw a gudd noonu nga koy waxee sunu mag ñi yàlla leen may xam nga ñoo ñaari baat niñ ko firi nga mën koo jàpp doy na waar lool fekkoon déggoo woon ñu waxal la ko nga bëgg koo firee firi mu neex te leer dalay jafe lool lool moo tax mag ñi yéemu nañu wama ak la nga xam ne yassarahu yombalal na ko moom yàlla mooy jàpp ndal na ko lëxoo ñeel nit min risque yi ci wërsëgam ba tey yàlla bu indee nit ci àdduna da koy sàkkal wërsëg woo xam ne faaw rek mu jot ca wërsëg yi appanti waaye kenn mënta raw sa wërsëg faatu sa wërsëg wa matut déedéet waal la ma te mu xamal ko maa loo xam ne lam yëkku nekkutoon yaa la mu di ko xam doomi aadama bi door a juddu day mel dafa gumba tax lu waaye yàlla mi ko may ab gis ak ay nopp yu muy déggee ak xel ak xol day mujj rek doomi aadama xam-xam ba xam lu baree bare wakaan nekk na te mësta dañ fadlullahi ngëneelu yàlla aziman di aji rëy xale ci moom nit aziman di aji màgg moog rëy benn lañ doomi aadama neen naka jekk ku yàlla fonk la ku yàlla baaxe la ku yàlla jox ngëneelam lu rëy rëy la waaye ba tey nag yan na ko yan bu diis a diis moom lay bëgg a wax mooy war na bëxëxoo te mu yee ko bi asaari sanxatihi ci jeex yi ci jëfam yàlla daa xamal doomi aadama ne ko dama laa sàkk kat ngir yaar benn ba mooy nga wéetal ma benn ba mooy nga jaamu ma te nag li nga xam ne moom laa sàkk ngay jàkkaarloo moom ci diggante asamaan ak suuf ci rek sa bët boo ca xalaatee rek ca nga yeewoo ba xame ma ca xam ne man maay sa boroom man nga war a wéetal te jaamu ma mooy la mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ahdara te mu dagg aw lay ilayhi jëm ci nit xalaa alsinatil mursalina ci làmmiñu ñañu yónni alxiyarati ña di ay tànneef min xalqihi ci mbindeefam yi nee na bi suñu borom yónnee ay yonante dagg na layu doomi aadama mooy doomi aadama aw layam fàq na amatul aw lay ndax suñu borom daa wax ni sax su ko defutoon yónni ay ndaw dañ koy wax ne ko law laa arsalta ilayna rasulan fa nattabiha ayatika wa nakuna min al muminin dañ koy wax ne ko lu teexoon nga yónni ndaw ba ñu xam fa nga bëgg fa aw ban aw fa kon nag ba mu yónni ay ndaw waaw lay moom fàq na fa hadaate mu jubal moom yàlla man ka nga xam ne waffaqahoo tawfiqal na ko bi fadlihi ci ngëneelam wa adalla te mu réeral man ka nga xam ne qadalahoo wàcc na ko bi adlihi ca maandoom ga suñu borom kat ba mu yónnee yonante yi ñi wane yoon wi itam kat leen lu ne ci coobareem rek lay wéy am na ñoo xam ne moo leen tawfiqale ñu gindiku aw ci yoon yoonante am na ci ñoo xam ne moo maanu ci ñoom wàcc leen ñu sànku daal di réer kenn du nekk lu tax nga def li nga def waaye nag doomi aadama sabablu rek moo ko war ndax fii mu nekk ci àdduna xam na ni lépp yàlla te teewut la mu bëgg day farlu ci wut ko la mu ragal day farlu ci daw ko kon nag gëm ak topp itam noonu la war a farloo ci wut ko ndax yàlla taw fi xale ko ko weddeeg mooy ak lu demee noonu noonu la ko war a soree ak di ko daw te ci jéem mucc ndax yàlla musal ko ca wa yassara te mu jàpp ndalal al mu'minina way gëm ña li yusra ñeel yoonu ajjana wa sharaha te mu ubbi suddoorahum seeni xol li zikra jëm ci nangoo dégg ak waar wa amanoo te ñu gëm billahi ci yàlla naatiqiina mbir mu ñuy way tudd ko bi alsinatihim seeni làmmiñ wa muxlisiina tey way sellal ko bi xulóobihim ci seeni xol wa aamiliina tey way jëfe bi maa ca la nga xam ne atat fum dikke na leen bi ca loolee rusuluhoo yonanteem ya wa kutubuhoo ak téeréem ya wa taallamoo te ñu nangoo xam lu maa la nga xam ne allamahum xamal na leen ko wa waqafoo te ñu taxaw indamaa fa nga xam ne xadda daytal na ko ba limité na ko lahum ñel leen wastaxanoo te ñu doyloo bi maa ca la nga xam ne axal la daganal na ko lahum ñel leen xamma bàyyi la nga xam ne xarama araamal na ko alihim ci ñoom nee na suñu boroom nag daa am ay jaam yoo xam ne moo leen baaxee yombal leen gëm ngay tax a dem àjjana ubbi seeni xol ba ñu nangoo dégg waar tey waaroo ko gëm loolu moo tax ñooña seenu gëm mat ndax gëm balaa mat ni mu ko waxee lay demee des koy fas ci xol seere ko ci làmmiñ jëfe ko ci ay cër te ñu mel nii nga xam ne yàlla leen taw fii xale noonu la ñuy mel ñu mel noonu dañuy xam lañ war a xam yem fa ñu war a yem yem ci rek la dagan bañ ko weesu jàll ca la araam loolu la tàmbalee muy sant yàlla waaye lu tegu ci julli ci yonante bi daal cee teg am maa baax du daal gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi aana naa yàlla nanu dimbale allahu yàlla wa iyaaka ak yow saa mbokk mi daa mbokk mu sàkkoon ci moom mu taalif téere bi moom lay waxal ci wa iyaaka ji xalaa riayati wadaihi ci sàmm ay ndénkaanam waxin zima ak wattu la nga xam ne xaw daa anaa dénk nanu ko min sharaihi ci ay yoonam dane gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi yow saa mbokkum sëriñ mi di sàkku ci man ma taalif téere bii maa ngi ñaan yàlla boole nu dimbali maag yow ak ñëpp sax ci sàmm cër yi mu nu dénk mooy juróom-ñaari cër yi nga xam ne kenn ku ne war nga koo sàmm ba delloo ko ci sa boroom te bañ caa xëtt ndigal ba tey mu ne ko yal nañu yàlla dimbali ci sàmm luwaay yi nga xam ne yoon yi nga xam ne moom la tëral awe ca na bëgg ku ca ku ca na awe te bañ leen a xat fa innaka ji moo topp ci amma baxdu ca dëgg-dëgg waaye dafay jaarale ñaan gi mu ñaan léegi sa alta nii laaj nga ma mbaa ñaan nga ma an ak tuba ma bind la ka ñeel la jumlatan mbooloo muxtasaratan mu di muñ gàttal min waajibi umuri diyanati ci aji wari mbiri diine mim maaj la nga xam ne tantiqu dana tudd bi ci moom al alsinatu làmmeñ ya wa taataqiduhoo te koy fas al qulubu xol ya wa taamaluhoo te koy jëf al jawaarifu cër ya dane ko dangaa sàkku ci man yow saa mbokkum sëriñ mi ma taalifal la téere boo xam ne day ëmb mboolem wartee fi diine te du ko tee gàtt mooy du ko tax a gudd wartee fi diine nag da caa am loo xam ne des ko war a fas ci xol seere ko ci làmmiñ te loolu mooy gëm am te lu ñu war a jëfee ci cër te loolu mooy shariha ñu koy wax fiq wooma ak la nga xam ne yattasilu dana jokk bil waajibi ci aji warja min zalika ci loolee mina sunani te moo di sunna ya min mu akkadiha cee ñu fedd li seen wa nawaafiliha ak seeni naafila wa raxaibiha ak seeni xememteef waaye moom nee na ñu mën naa wax ne rek wa raxibatiha wa shayin ak dara min al aadaabi ci ay teggiin min haa ci ñoom wa jumalin ak ay mbooloo min usul fiq yi ci cosaani fiq wa funoonihi ak ay bànqaasam ala madhabil imaam yi ci ngiru ilimaan ba malikin malik ibni anas kay doomi anas rahimahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla taxala kawe na wa tariqatihi ak yoonam mu ne ko dangaa bëgg sax ma bañ yem ci wax rek la war xanaa jàll ba waxaale la nga xam ne daa sës ci la war te warul loolu nag mooy lu mel ne sunna sunna yaar la am na sunna yu ñu fedd li ñu dëgër lool bari tuyaaba lool am na sunna yu agul ca noona ak xeeti naafile yi naafila sunna ko ëpp doole ma ne bu dee julli juróom ñoom farata lañu boo leen weesoo julli sunna yi ñoo cay topp muy li ñuy wax wetar benn ràkk boobu nga xam ne mooy topp ci safa ak julli korite tabaski ak julli muuru jant julli muuru weer am na wóote ndax julli sunna la wala agul ci sunna boo weesoo nag julli sunna yi rax yi batu muy ñaar ràkkay fajar yooyu moo ci gën a màgg raxibatu mooy loo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko xemem loo xeet yi di ki bam ne rakxataal fajri xayrum min addunia wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën addunaag li ci biiram bu fekkoon ne addunaag li ci biiram lu ama am solo la kon raxibatu mooy sus ci bu sunna jàllee naafile yi nag bu dee julli yi mooy li mel ne julli yoor yoor mbaa julli ngay julli njëkk bala ngaa julli tisbaar ak gannaaw tisbaar ak njëkk takkusaan ak gannaaw timis ak gannaaw gee yi mel noonu xeeti naafila lañu mu ne ko dangaa bëgg nag ma andi yooyu yëpp te andi waale itam yenn teggiini diine yi yooyu dana ko andi ci mujjug téere bi ni ki teggiin lekk ak naan jëm noonu mu ne ko dangaa bëgg sax ma andi waale yenn masala yu mag yee mag ak yenn masala yi ca bàngaasoo cosaani fiq mooy masala yu mag yi bàngaas fiq mooy masala yu ndaw yi nga bëgg sax yooyu ma àndaale leen te yooyu yëpp nag dangaa bëgg ma andee ko ci yoonu al imaamu malik yoonu al imaamu malik nag mooy na malik gisee attey diine yi moom nag moom la sëñ Tuubaa digal mboolem taalibe yi ñu àggala ci sax wax ne bu ngeen ma gisee may def loo xam ne wuute naag la ngeen jàng ci téere Maalik yu wér ya bu leen ma ca roy na ngeen xam ne samay jagle la yéen ngeen dellu ca la ñu rëdd ca téere Maalik yu wér ya maxamaa ànd ak la nga xam ne sahala jàppandal na sabila ma yoonu la nga xam ne ashkala lënt na min dalika ci loolee min tafsirir raasixiina ci pirim way sax ña ca xam-xam wa bayaanil mutafaqihiina ak biraluk way dégg yi fiq mu ne ko dangaa bëgg ma taalifal la lii ma wax lépp lépp te boole ci nag yombalaale lépp lu boroom xam-xam yi mag ya doon firi te mu lëntandi ba tey ak lu gaa yi dégg fiq doon jéem a leeral te mu desee leer dangaa bëgg loolu lépp ma indiwaale ko bu baax a baax lu lëntoon lënt ma dañ lu desee woon a leer ma leer laale ko mu ne ko loolu nga bëgg li maa ngir li nga xam ne rax yëpp ta xemeem nga fii ci moom min taalimi zalika ci xamal loolee li lil daal di ñeel gone ya kama tuallimuhum ni nga leen xamale xoroof alquran yi arafi alquran li yasbiqa ngir mu jiitu ila qulubihim jëm ci seeni xol min fahmi diinillahi ci dégg diine yàlla ji wa sharaihi ak ay yoonam maa loo xam ne turjaa def na yaakaar lahum ñeel leen barakatuhoo barkeem ba wa tuhmadu te def sant lahum ñeel leen xaaqibatuhoo ak mujjëm xam naa ne gone yi nga jàngal alxuraan ba àggal rek ñoom nga bëgg su ma la taalifalee téere bi nga jàngal leen ko ndax ñu teel a dégg diine bu baax a baax ba nga xam ne diine mooy njëkk ci seeni xol ñu amee ca loo xam ne daañu ci amee barke bu ëllëgee amee ci mujj gu rafet muy àjjana bu ëllëgee mu ne ko xam naa loolu nga bëgg daa fekk nag mbokkum sëriñ moomee yoroon ay gone jàngalil alxuraan bëgg nag bu ko taalifalee téere bi moom mii taalif mu jàngal leen taalif yi mu ne ko li nga bëgg fa ajabtukati tontu naa la ila zalika jëm ci loolee li maa ngir li nga xam ne rajawtuhoo yaakaar naa ko di nafsi ñeel sama bopp wala ka ak ñeel la yow itam min sawaabi man ci yoolu ka nga xam ne allama xamle na diinallaahi diine yàlla ja aw daa wala mu woote ilayhi jëm ca xamle ga dane ko nangul naa la li nga sàkku ci man te moo di taalif téere bi ndax yaakaaral naa ci saa bopp yaakaaral naa ci saa bopp tuyaaba yaakaaral na ci yow itam tuyaaba ndax ka jàngali diine ja mel ni ka taalifab téere ak ka tax mu def ko ñoom ñëpp ñoo cay bokk am tuyaaba waalam na nga xam nag ne ànd xayral xulóobi naka ngeen ji xol yi aw haha mooy gën jaa wattu seen lil xayri ñel xam-xam wa arjal xulóobi te gën jaa yaakaari xol ya lil xayri ñel xam-xam maa mooy xol ba nga xam ne lam yaspiq mësta jiitu asharu mooy yàlla ilahi jëm ci moom dane ko loolu nga wax ci gone yi bëgg leen teel a jàngal diine noonee nga ko bëggee rek noonu la gëne ndax ndax xol yi xol ba ci gën mooy xol ba ci gën a xam xam-xamu diine gën caa ëmb lu baax xol bañ gën a yaakaari xam-xam ak lu baax mooy xolub gone gone mi nga xam ne tàmbalee wuñ koo bindal bàkkaar ndax mag moom dañ koy tàmbalee bindal bàkkaar te bàkkaar yooyu day fekk leeru xam-xam ak lu baax ba du jàll si gone nag moom kenn tàmbalee wuñ koo bindal bàkkaar moo tax def ci moom lu baax ak xam-xam day yomb kon nag lii nga sàkku lu mata sàkku la waaw laama gën jaa yooyu la nga xam ne xun ya sonne na bi ci ci moom annaasixoona way laabiir ña wa raxiba te xemem fii ajrihi ci am yoolam arraxiboona way xemem ña isaalul xayri mooy àggale xam-xam ilaa quluubi awlaadil muminina jëm ca xol yi doomi julit ña li yar sax ngir mu sax fiihaa ci seen xol ya wa tambihuhum ak seen wuyee xalaa maalimi diyaanati ci màndargay diine wa xudoodi sharihati ak dayali shariha li yuraadoo ngir bu dee fi tàggat leen xale yi ci ñoom wama ak la nga xam ne alayhim war na leen an tax taxti dafa mu fas ko mina diine ci diine qulubuhum seeni xol wa taamala tey jëfe bi ci moom jawaarihuhum seeni cër mu ne ko li nga xam ne kuy laabiire ci nga war a gën a sonne jëmale ca sag laabiire ku bëgg tuyaaba moom nga war a gën a bëgg ndax nga ëppale tuyaaba mooy rek fexe ba jàngal doomi jullit ñi diine yàlla ji ba ñu xam ko te jàpp ko yée leen ci la yàlla bëgg ak la yàlla bañ tàggat leen ca ba seeni xol nooy ca seeni cër nooy ca nga xam ne kon lu ñu war a gëm daañu xam naka lañ koy gëmee te gëmee ko noona lu ñu war a jëfee daañu xam naka lañ koy jëfee te jëfee ko noona nee na ko lii kuy laabire ci nga war a gën a sonne kuy bëgg tuyaaba ci nga ko war a gën a bëggee mu joxe ci tegtal fa innahu naka lay mbir moo di ruwiye net leef na ne ànd na temps lii ma sigaari naka jàngal gone ya li kitaabillahi ñeel téereb yàlla ba yottixiw dana fay xadaballaahi merum yàlla mu ne kon nee nañu gone yi buñ leen dee jàngal alquran loolu day giifal merum yàlla mer ma yàlla mere woon seeni baay mbaa mer ma mere woon ñoo ñëw leen di jàngal mbaa boog mer ma mere woon ñëpp ñëpp rek nga xam ne kon jàngal gone yi alquran day tax yàlla mer ma meroon ba war a wàcce mbugal loola giif ba du wàcce mbugal ga ci doomi aadama yi wa anna taalima shay'i ak naka xamle dara fi sixari ci waxtu ndaw kan naqshi mi ngi mel ne ki rëdd fil xajari ci aw doj nee nañu loolu addis la boo xam ne ak tabaraani netti na ko muy marfon waaye nag mel ne ne càllala ga daa xaw a doye di tax ko dër te mu ne it gone loo ko jàngal day dëgër ci moom lool sax ci moom bu baax a baax mel na rek ku fekk aw doj nga bind ca ki nga fekk rek fu ñu dër dërub ciment nga bind ca rek lu yàgg-yàgg boo dikkee fekk fa mbind ma gone li ñu ko jàngal noonu la fay dëgëre noonu la fay saxe kon nag gone teel koo jàngal fexe ba la nga koy jàngal nekk lu wér a wér lu ama am solo la nee nañu nag li ñu def noppalu alxamis ak ajjuma cosaan la lu dëgër a dëgër loo xam ne mat naa sàmm bu baax a baax ndax nee nañu Omar ibn Xattaab moo njëkk a boole ay gone jox leen ku ñuy wax Xaamir ibn Abdillah alxusaayiyu te ko dee leen jàngal ba noppi nag warlul ko lam aajowoo di ko ko jox ci baytimaal fekk gone da caa amoon ñu gàtt xel am ci ñu am xel mu ne ko ñi nga xam ñoo gàtt xel dee leen bindal ci alluwa ña am xel nag moom dee leen sax rek noonu bañ leen a bindal Omar sax dara woo gone yooyee di leen seereloo ay mbir ndax bañ bu mag ñi demee te mbir yooyee ñu ko fekke woon amu fi te gone yi am na ci ñoo xam duñu gaaw fàtte bu bëgg nag gone yi jàpp loolee ñoom gone yi ne ko danoo bëgg kat nga defal na ak jàppandal ak waye falal ci njàng mu metti mi Omar ne kay jàngale da ngay def boo jullee suba ñu tàmbali ba yoor yoor bi xaw a dëgër bu ko defee ñu noppalu bu jullee sibaar ba àggal tàmbali waataat ba julli takkusaan su ko defee nag delluwaat noppalooti noonu lañ ko daan doxalee ñu ne nag ba Omar demee Sham di ko ubbi ji ci menn at dafa yàgg ba am fa lu mat weer ba mu ñibbi si Madina nag fekk waa Madina namm ko waa Madina génn ànd ak gone yi ñu dem di ko teeru ji waaye nag fañ ko doon teeroo ak Madina daa sori ba mat doxu bis tombeeg bis boobu itam di bisu alxames bay ne ñu fa fanaan ak moom Omar foofa bañ xëyee nag muy ajjuma ñu ànd ak moom ñëw Madina bi ñëwee itam sonn lool ñoom gone yi ndax xam nga alxames joojee dañoo dox doxum bis ànd ak mag ñi fanaan wëlbati ko àndaat ak Omar ñëw Madina muy bisu ajjuma ñu sonn lool nag Omar may leen ñu noppalu ñaari fan ñooñee muy alxames joojee nga xam ne cañ ko doon teeroo ak ajuma ji nga xam ne ca la àndeeg ñoom ñibbisi ba agsi Madina kon muy alxames ajuma kon ñaar ñaari fan la loolu fa lañ loolu nag fa la ñu tàmbalee di noppalu alxames ak ajuma ci mboole ñi nga xam ne ñooy jàng ci daara yi alxuraan yi moo tax saraa bi naa fa saara dalika sunnatan ila yawmi alqiyamati wa daxaa bilxayri liman axyaa haadihi sunnata wa daxaa bi diixi risqi liman amaataha maanaam boobee lañ tàmbali di doxale doxalin woowu doo ngay daara yi di noppalu alxames ak ajjuma te noonu kat moom lañ bëgg ñu sàmm ko bu bis fenc nee nañu sax Omar ñaanoon na ku sàmmoon teg loolu yàlla defal la aw yiw ku sàmmoonte wut ak moom nag yàlla xañ la wërsëg xatal sa wërsëg waxadd mattaltu misaal naa lakka ñeel la min saalika ci loolee maa loo xam ne yentafiyoona danañu jariñ ñoom gone yi incha andeem soob na allahu yàlla bi xirsihi ci mokkalam ci watoom wa yashrifoona te ñuy tedde bi ilmihi ci xamam wa yasxadoona te ñuy texee bi itiqaadihi ci ak fasam wal xamali ak jëfe ga bi ci moom moom mi taalif moo wax mbokkum sëriñam moom mu ne ko li nga bëgg ma andil la ko andilee naa la ko ci anam goo xam ne bu soobee yàlla su ko gone yi mokkalee daañu ca jariñu buñ ko xamee daañu ca amee teraanga buñ ko gëmee te jëfe ko danañ ca amee texe adduna alaxira waxadi jaa te dikk na ci addis ay yu maroo bu dee fi digal leen bi salaati ci julli li sabhi sinina fa juróom-ñaari at wa yu daraboo te dee fi door leen xalihaa ci julli ga li ashirin fu fukki at wa yu farraqa te dee fi teqale baynahum seen diggante fil madaajihi ca tëddukaay ya kon nag faka dalika naka noonu kon naka noonee yambax yi dana yell an yu àllamoo bu dee fi xamal leen maa la nga xam ne farada farataal na ko allahu yàlla al ibaadi ci jaam ñi min xawlin ci wax wa xamalin ak jëf qabla bu loox yi njëkk seenu kàllafe li yatiyee ngir na dikk alayhim ci ñoom al bu looxu kàllafe ga waxaat tamak kana te fekk na mu dëgër dalika loolee min qulubihim ci seeni xol wa sakanat ti dal ilayhi jëm ca loolee anfusuhum seeni bakkan wa anisat temiin jawaarihum seeni cër bimaa ca la nga xam ne yaa amaloona danañu jëfe bi ci ci moom min daalika ci loolee dane ko boo déggee ni yonante bi waxe ne seeni gone buñ amee juróom-ñaari at na ngeen leen digal julli su boobaa buñ bañee jëruñoo dóor ndax foofa tudd fa ab dóor te kene bu ñu amee fukki at na ngeen leen digal julli te buñ bañee ngeen dóor leen dañuy wax ne boobaa dóor ba du dama ab yax du xotti deru yaram du metti ba ëpp mu ne itam su boobaa na ngeen leen di teqale ca fa ñi tëdd la ñu jubli ci teqale ba rek mooy dañuy bañ nga bàyyi ñu def yaramu neen nga sàng leen menn mbalaan seeni awra di laalante xëy na kenn ka bànneexu ca laalante awra ya wala ñoom ñaar ñëpp ñu am ca bànneex ba ñu yaru ca loola buñ doonee mag loolu nekk seenum xel moo tax loolu moo tax bu kenn ku ne solee yére yi boppam mën nga leen a boole sàng benn balaan boole leen benn balaan sàngi leen ko du aay bu fekkee ne kenn ku ne sol na yére yi boppam ba àggal nga xam ne seeni awra du laalante te loolu bu ñu amee fukki at lañ koy sàkku nga xam ne bañ gaa def lu ñu sip lay doon mu ne ko nag ni yonante bi waxee ci gone yi xaat te kàllafeeguñ ci ngay dégg ne kon gone boo ko amee danga ko war a jàngal lépp lu mu war a xam ci diine muy lu ñuy wax muy lu ñu jëf mu xam ko bu baax a baax balaa kàllafe nga xam ne bu kàllafee day fekk xaman na la mu war a xam ci diineem fekk na it nga tàggat ko ci ci ay cëram ba mu làggi ja nga xam ne kon xol ba làggi na ca cër ya làggi na ca ca diine ja loola mooy baax te nag ci mi addisi nag moom nii la tëdde te ne woon muru awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabain wadribuhum alayha wahum abnaau xashrin wa farriqu baynahum fi lmadajihi waqad farada faratal na allahu yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp lu yelul ci moom alquloo bi ca xol ya xamalan jëf min al itiqaadaati ca pasteef ya waxanal jawaarixi mu farataal ci cër ya al zahirati aji feeñ xamalan jëf min al taaxaati ci xeeti topp yàlla yi daa wax ni nit suñu borom da ko def ñaari wàll xol bi cër yi ci des xol bi moom la yàlla féetale lépp lu ñu war a gëm ak lu ñu war a fas ni ki yéene xol bee koy def cër yi nag moom lu ñu war a jëf ci ndigal ak bàyyi tere cër yee ko war a jëf wasa u fasilu xasat na maa tàqale laka ñeel la maa la nga xam ne charatu sartoon naa laka ñeel la dikkirahu ak tuddam baaban baaban mbir muy bunt ci gannaaw bunt li yaqruba ngir mu jege min fahmi mutaxallimihi ci déggug way xamloom mooy déggug way jàngam incha allah ndem soob na allahu yàlla taxala kawe na dane ko nag